envoyé un secouriste. ah oui yow. faire en sorte que kër. baaxatul dëgg la kon kër bu ne dafa war a am secouriste. c'est ça. vraiment ñu ngi leen di jaay defal ci liggéey bu am solo bi ngeen di def ci xale yi. dëgg la la monitrice Tata Mbodj Tata Mbodj mu doon ko jaar. jeune de la Croix-Rouge. jeune de la Croix-Rouge. jeunesse de la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Croix-Rouge. Croix-Rouge. croix di gis nii. am na lu ñu bala ko doon xam tey nit daanu fi xam. waaw waaw ñoom daañu ko di jëm si xale yoo ko yóbbu hôpital. donc yéen a am solo. yéen ngi liggéey liggéey bu am solo mais aussi j'aimerais aussi au niveau donc euh, de l'hôpital des fois su ma am des déplacements là-bas pour venir encore vous appuyer à la balle ci yar xale ci ah ah. encadré xale ah kenn mënu leen ah oui euh. jaajëfal leen bu baax a c'est que juste vivre en communauté Alioune Fall lu am solo la. dëgg la te dañ koy def ci xale yi. c'est ça dañu mën a dund ku nekk. c'est le vivre ensemble bien. c'est une discipline qui est enseignée à l'école élémentaire. ok le vivre ensemble c'est très important. merci mon ami mon frère. c'est les éclaireurs. merci beaucoup pour la précision. éclaireurs toujours toujours. excusez-nous.

Ah, ça c'est beau. Merci, on les applaudit très très fort. Ah ouais. Merci, merci beaucoup. njiit dafa war a oyof. ah oui njiit dafa war a dal. njiit dafa war a nekk koo xamee dafa war a souple. tey tax ñu ñeme la mais aussi mën na ñeme rek jàmm day daal di am. dëgg la wax encore nos dirigeants nañu gën a nekk des gens yoo xamante ne bii très très accessible. dëgg la dal ak ak maanaam ak woyof lépp lépp day day day tënk jàmm rek. merci monsieur le préfet merci beaucoup.

département bi dinañ ko jox dañ ko jël teg ko si loxo préfet merci beaucoup. mais ba Rafaal. Ah, ah. ñii ñu dara xàmmee lañu. waaw bu dul dara sax. dëgg la ñu def leen ay xarit. dëgg la neex na ñuy jaar. macha allah ñu tàcc leen bu baax a baax a baax. ah oui. Euh. ah merci. nga rafet. école pétrolière Markanda Gossas. Eh, Alioune Mar bi laa bokk ah. Eh, ah oui c'est bien ah oui. Euh.

l'école morale des idéaux, il y a la politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi, l'amitié. Tout ça, merci beaucoup. Tout ça, ça, on peut le regrouper en dans ce symbole la paix. Merci beaucoup. Merci. lii ku ko am daanaka am nga jàmm moo yaroo am jom am honneur respect. Badou. waaw du ñu jóg di jaajëfal suñu armée nationale. Uh-huh. moo xam gendarmerie moo xam police. Uh-huh. wala militaire yi. liggéey bu am solo la ñuy liggéey si suñu réew mi. pour maintenir l'ordre et sécurité. waaye suñu jëlee macha allah. dëgg la dëgg la seen défilé am na classe. C'est ça. Mais c'est vers l'essentiel. Bon, le, le GIE des sables du cœur. Merci. Leur est la fête de cette partie par une petite épreuve. Mashallah, rafetna li rafetna. di leen fàttali aussi di fàttali aussi ruuj jot na. ruuj jot na ruuj jot na. merci beaucoup. ñu leen di ñaaxaale. liggéey bi rafet na macha allah. tey bu Sénégal xiiful tey. ginnaaw yàlla yéen ñii la. seen liggéey rafet na lool lool lool lool lool. macha allah surveillance alimentaire mënuñu ko am yëpp. dëgg la. mbay mi activé wuñu ko. macha allah waaw waaw. sama gars yi léegi du ñoom. ah, ah waaw ruus merci beaucoup. macha allah. dëgg la Fall. day français day français. ah day français. ah ci dugub Fall. aca tourné merci beaucoup ñu tàcc leen bu baax a baax a baax a baax Merci. Merci beaucoup. Ah oui. Euh. Merci. Voilà, machallah. Merci de t'assurer de ah oui, des applaudissements. Merci. C'est toujours dans le contexte de la ah oui. wala euh. agriculture. wala Fall. waaw. machine bi ci kaw mooy Arara. waaw mooy Arara ah, merci beaucoup. am na dëgg. am na dëgg waaw am na dëgg merci beaucoup mooy Arara. c'est ça. dafa ku lay bay dañ ne tracteur. waaw rafet na. Alphal. waaw ku lay bay les tracteurs. les tracteurs. campagne bi rek daal di mel. macha allah mi ngi lay. et vraiment on tend vraiment vers euh, la modernisation de l'agriculture. c'est ça. technique de modernisation. c'est ça. vraiment lii rafet na trop. comme ni ngeen ko waxoon rek. défilé ren bi dafa ala daw. ala daw macha allah neex na ba noppi. neex na ba noppi. waaw ñu ngi seen ci ginnaaw. waaw. waa Mbour gi la. boulangerie. waaw. yéen a xam ne bu ñu ci neexee yàggal doom la. merci beaucoup. avec. ça c' est. lépp a kontaan. bu dee ba tànk bu dee maa gis muy dee. ñu seelee pour mi. lépp a kontaan. merci ñu tàcc leen bu baax a baax a baax. ñu pour Fajar Diop. nga war a dëkki en faale mi. parce que vraiment waaw lii dafa bokk ci yokkute. tey boo gisee Gossas mën a installé yu nu ñëpp dafa bokk ci yokkute mais aussi dafa bokk ci jàmm. parce que tey soo ko doon yaakaar naa ni kenn du ñëw final bi am fi investir. c'est parce que jàmm moo tax moo tax Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ku jara ku jara sant la. tax nañu léegi kenn jaaxletul. merci déplacement yëpp boo woowee clando yi. dëgg la vraiment mais aussi jàmme jàmme dama wax sànq loo xamante ne bi dafa am solo. gis nga tey Gossas bu amuloon jàmm. te Gossas du fi ñëw di fi installé horaire am bi. dëgg la c'est parce que Gossas dafa am jàmm. moo tax ñu fi investir yàlla jàmm nga di sax. mais jàmm ci ñuy liggéey liggéey bu am solo ci dëkk bi. mooy professeur de nuyu Paul mon ami. voilà merci beaucoup. ñoom ñoo horaire bu seen. horaire bi vraiment Gossas di jot ci boppam. mais beneen baal. waaw. dëgg la. te dafa am li nga xam ne c'est frappant. le client est roi. et puis dañ koy defee. mais aussi c'est quelqu'un qui respecte les heures de prière. ah oui euh. c'est très important. lu am solo la c'est important koo xamante ne heure julli nga ko respecté. yàlla na jàpp. Ah, ah. Bara Fall. waaw. lii weer pédale yi la. merci beaucoup. am nañu solo ndax sport la. dëgg la. ah oui. merci da nga ci dox sa course. Babacar baax a baax. la fait a été belle et l'histoire de Gossas retiendra cette édition, mais tout simplement dire que ça a été une exception. À travers la participation pour une première de la zone militaire numéro 3, car dans l'histoire de Gossas, même s'il est dit que ça n'a pas été la première fois, mais ça a été l'une des rares occasions que la zone militaire a été là au opportun pour nous accompagner pour la réussite vraiment du défilé ici à Gossas. Je voudrais m'apesantir sur euh, ce pour inviter la population à faire preuve de plus de citoyenneté à faire preuve de plus de patriotisme. Car sans ces valeurs, nous ne pourrons pas une paix durable et un développement soutenu dans notre cher pays. Et c'est le lieu vraiment d'inviter la population à faire preuve de plus de citoyenneté et de patriotisme, mais également aussi à s'inspirer les valeurs intrinsèques de vie que nous ont léguées nos ancêtres. Et ces dites valeurs qui tournent autour des concepts tels que le Djom, le Fit, le Foul, le Feida, et qui sait le Sénégal, le sait très bien comme quelqu'un vraiment de très imbu dans ses valeurs. Et on doit davantage nous tremper dans cela pour que la cohésion sociale qui est là se davantage et que aussi également pour que les résultats attendus, attendus par, dans notre pays à travers euh, la politique du chef soit l'État euh, soient quand même relevés et que le Sénégal de demain soit non seulement en de paix, mais que toutes les conditions soient réunies pour que l'on puisse vraiment comme le gap qui nous sépare des pays émergents. En tout cas, vraiment remercier une fois de plus la population, remercier également en fait, bon, l'ensemble des composantes ici présents, remercier vraiment du fond du cœur les autorités locales, comme je dis tantôt, remercier aussi en fait, bon, les services de service, remercier également le comité d'organisation pour son engagement sans faille à nos côtés, remercier aussi également M. le Premier ministre également qui a été des nôtres, qui nous a accompagnés aussi pour qu'on en à ce niveau de réussite. en tout cas vraiment l'ensemble des acteurs, l'ensemble des défilants quand même, euh, soient remerciés de par Mova pour véritablement en fait bon, dire leur engagement et aussi également leur euh, disponibilité. Je vous remercie, merci beaucoup. Donc di remercier di santaan ñëpp di gërëm ñoom kon ñu ko wax euh, rawatina ñi nga xam ne tey ñoo taxaw fii suñu wet muy euh, président conseil départemental muy maire muy honorable député mu également, euh, commandant brigade, major sapeur-pompier, euh, chef également, directeur MAC, ak ñi nga xam ne aussi mooy eaux et forêts service d'hygiène en tout cas aussi également militaires yi nga xam tey ñoo ñëw tey jàppale population Gossas ci fête bi nga xam ne mooy fête du avril mu doon fête boo xam ne bu mucc ayib la ndax euh, ci taarixu Gossas bu dee militaire mosu fa ñëw pour défilé bëriwul donc tey bu amee tey dafa doon loo xam ne ah, dafay des ci histoire Gossas te incha allah dana boo xam ne Gossas duñ ko fàtte ndax seen taxawaay te dafa rafet du ñoom rek xanaa ke dañoo ñëw yokk ci li nga xam ne moom lañ fi daan def moo doon lu rafet vraiment doon loo xam ne aussi en fait lu lépp ñu lu ñu ñëpp également euh, rafet taram la. ci loolu bokk na ci implication wu population bi yëpp tey ah ñun ñëpp dañoo ànd doon benn benn dank ah jàppalante ci li nga xam ne aussi. mooy réussite défilé bi en tout cas vraiment mu doonoon loo xam ne yomboon la ndax comité d'organisation bi ñu ñu jàppal lañu te comité bi su ma limee jum waaye ñu jàpp ne daal euh, structure de jeunes ñu ngi ci euh, ñoom ñëpp ëmb ci turu CCJ CDJ aussi ñu ngi ci également nga xam ne moom moo jiite kaw CCJ également aussi Croix-Rouge bokk na ci également aussi euh, yeneen structure jeunes yoo xam ne ñu ngi jëng ci commune bi également ci lañ bokk mu doon loo xam ne lu am solo la ndax euh, nit bu ñu la jiitalee ña lay jiital aussi ànd ak yow ci loolu ñu la dégg daf lay ngay doole te daf lay yokk fit te daf lay yokk également góorgóorlu vraiment daal doonoon na tey bés boo xam ne bés bu màgg la te en terme d' organisation mën naa ne tey ah lépp jaar na yoon lépp yemboon na te euh, mën naa ne euh, région yi nga xam ñoom ñoo fi nekk di ay référence fu ñu leen limee tey lim Gossas ndax la ñu def la def bu rawul ñoom la ñu def tolloon ak la ñu def vraiment di santaat une fois de plus acteurs culturels yi di santaat une fois de plus population bi ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a défilé di sant également suñu mbokk journalistes yi nga xam ne ñoo ñëw ñëw tey assuré couverture médiatique manifestation bi ak ñi nga xam ne aussi ñoom maître de cérémonie yi en tout cas daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne tey waaw solo seen bi aussi dañ koy indi ci tembe rek parce que dañ ne contribution des forces de défense et de à la paix internationale parce que ku ne Sénégal un peu la wone ci Nations Unies doon na réew moo xam ne dañ ko cité en exemple doon na roy gaay parce que damay joxe ci ay jàmbaar ci réew yi nga xam ne dañu am ay fitna euh, bëri na te loolu dafa dépassé pays yi nga xam ne ñoo ko ëpp moyen war a gën a engagé loolu nag ñu doon ko tuuti ci li nga xam ne c'est-à-dire moom mooy jàmm ji nga xam ne moo war a tënk euh, suñu dundin ndax gis nañ ne àdduna bi dafa yëngu gis nañ ne aussi jàmm dafa dafa sooxe ci dëkk yu bëri. mu doon vraiment jotaay boo xam dañ ci profité pour inviter population bi ñu gën a déggoo ñu gën a booloo ci li nga xam ni mooy jëmal réew mi kanam ñu gën a booloo ci li nga xam ne aussi mooy kaaraange réew mi ndax euh, am na phénomène yoo xam ne phénomène yu bees la lu ci mel ni ay djihadisme ak yu gan yu mel noonu donc mu doon euh, attitude yoo xam ne wala comportement yoo xam ne dañ ko war am képp koo xam sa biir koñ képp koo xam ne sa biir sa sa biir kër gis nga koo xam ni gan la fa mu leer na la kii ah melokaanam melokaanam bu xaw a tay xel la nga dem ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi moo xam ndax gendarmerie la moo xam ndax préfet sous préfet moo xam ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo fi nekk également te euh, ŋànk wàllu woowu nga mën leen a signaler li nga xam ne moom nga gis ndax nag également àdduna booy dox da ngay fagaru te ni ngay fagaroo aussi mooy nga jël say moytukaay ba lépp loo xam ne mën na laa indil gàllankoor ëllëg sa dëkk sa sa sa nga mën ko faagaagal en tout cas daal surtout ñu gën cee bàyyi xel gën a respecté kilifa yi gën a respecté également moom la ñuy tudd la chose gën a également fonk ñi nga xam ne également en fait ñoom la yàlla def tey ñu nekk ci kaw réew mi ndax bu ñu doxee réew mi dox te ñu leen di gën a dénk également kilifa yi ñu gën leen ñaanal te ñu gën leen jàpp ci nga xam ne également sax moo seen yére ci réew mi en tout cas daal vraiment daal ñu ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp di gërëmaat population la, la, la, la, multiplication en fait, bon, ça dit des, des, des phénomènes euh, djihadistes, vraiment en fait, on voudrait bien inviter la population quand à plus de vigilance pour une meilleure sécurité quand même euh, dans ces pays, une meilleure sécurisation également des personnes et de En tout cas, en fait, nous invitons la population dans son, dans ensemble euh, à faire preuve vraiment de plus de collaboration à l'endroit des services de sécurité. En tout cas, quand, quand un individu au comportement suspect se présente dans un quartier, se présente également dans un coin donné de la commune ou du département, qu'on ait ce parti qu'on ait vraiment également fait mon flair d'aller vers les autorités pour vraiment signaler euh, cet individu. En tout cas, je pense que c'est le meilleur rempart quand contre vraiment l'insécurité. Également, c'est la meilleure forme de défense également contre toute forme de déstabilisation de notre que Dieu a fait qu'à vraiment de ces soubresauts, mais on n'est jamais épargné vraiment de ces phénomènes. On prie Dieu quand même que l'attitude qui prévaut au Sénégal euh, soit de mise et cela fait bon pour l'éternité et que la population également fait bon. Ça, comme je dis tantôt, euh, soit enclin à dénoncer, soit enclin également à, fait, à collaborer, soit enclin aussi également, c'est-à-dire à euh, de plus en de, de de foule, de fuite et surtout également dans ces notions de paix qui est chère en fait et à laquelle nous accordons vraiment fait bon du prix. En tout cas, vraiment, vous remercier euh, du fond du dire merci beaucoup et prier Dieu qu'il donne la force, qu'il donne également la paix pour qu'on puisse la célébrer pendant de très longues années. Merci, merci beaucoup.